Senclic yéen ñi abonné gul aboni leen gaaw activé cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jàngin jëf asalaamaaleykum mbokki xaritu internet yi dañ leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant dañ leen di gërëm di leen nuyu di leen sant seen i ànd ak Senclic TV saa su nekk yéen a ngi ànd ak ñun et du ñu woy di wax ne ngeen di partager suñu vidéo di abonné mën a jot suñu actualité mën a jot suñuy information yi nga xamante ne ñu ngi koy livrer pour askan bi fu waay mën a nekk à travers le monde ñu ngi leen di wax ne di leen jaajëfal bu baax kontaan ci yéen bu baax a baax parce que dañuy wax ne bu feccu lii neexee nday jaatee ja mbagg ja te bu dul woon tey mën a amaana duñu fekk fii duñu nekk fii duñu am courage ba mën a ba mën di continuer di wëyal liggéey bi comme ni mu waree ñu ngi leen di sant di leen gërëm tey ñu ngi fii ci seen biir émission suma tailleur sama tailleur di émission bu bees bi nga xamante ne Senclic dañ ko ñëw jagleel ko wàllu mode mooy ñi nga xamante ne ni ay la ñu nekk biir Sénégal di ñaw lu extraordinaire di ñaw li nga xamante ne sax mu ngi génn di dem jéegaane bitim réew te mënuñoo fës tey nag dañ ci dajal kenn ki nga xamante ne di bu mag et puis di xale yëngatu ci wàllu tailleur ubbi benn entreprise am ñu naan ko mbay création ba pare ñu xam ko ci wàllu social mu nekk fii ci Grand Yoff eh, nekkat feneen fi nga xamante ne aussi tamit nag ci biir réew mi nit ñi miin nañ ko lool moom mbay création nit ñi miin nañ ay ñëwam ci plateau télévision yi ci cérémonie réalisée yi et ci tabaski ak ci korité yi ba koñ fii mu dëkk képp koo xamante ne nii ñëw nga rafet na boo ko rombee kan moo la ñëwal danaan la Mbaye Teur muy ndaanaan bu mag boo xamante ne nii mu ngi ci gox bi di def loo extraordinaire ci wàllu mode tey nag moom la ñuy waxtaanal parce que mosul bëgg feeñ ci télévision saay boo ne mbay Mbaye télé mu ne déedéet waaye tey nag fexe nañu Senclic TV déplacé wu ci biir émission Sama Teur ñëw fekk si ko fii ci diwaanam fekk si ko fii ci entreprise am fekk si ko fii ci place am mook ak ay équipe ñu fas yéene waxtaan ak moom génnee ko askan bi pour la première fois mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm remercier bu baax a baax di leen wax ne ngeen wëntine di abonné di mën a jot suñuy actualité que ça soit politique fait divers people et puis euh, société sport lépp loo xamante ne ni xibaar la biir réew ak bitim réew dañ ko fi jàllale mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaye nag tey dañ leen di proposer benn extrait bu ndaw après ñu ñëwaat ñu daal di koy dalal ci plateau bi ñu woyal waxtaan bi c'est maintenant regardez se terá. enterrar. sa teraanga sopp naa la ngir sa yiw sopp naa la ngir sa dal sopp naa la ngir sa teraanga fekkee xaritu internet yi xam naa ni bëgg ngeen kontaan ngeen ci yi tendance yu bees yi création yu bees yi innovation yu bees yi nga xamante ne nii muy mode tabaski jëm ci tabaski bi nga xamante ne nii ci la ñuy waajal tey dañuy bëggee euh, kontaan bu baax a baax parce que xam naa ni bëgg ngeen ndax ñun loolu mooy suñu mbégte su ngeen bëggee rek ñun bëgg nañ mbay dama lay nuyu dalal la wax ko asalaamaaleykum présenté ko Sénégalais yëpp Mbaye Ngok Mbaye création mbay asalaamaaleykum wa rahmatullah sama client yi maa ngi leen di leen sant. di am ci bu baax a baax ci émission bi nga xam ne ni maanaam ñu ngi koy partagé ak man di rafetlu bu baax a baax a baax sama euh, jëfandikoo yi ñi nga xam ne nii maanaam avant tout ñi ma nekkal laay njëkk sant gërëm leen te tey su ma demee ba yàlla may ma dolli à cause de ñoom la muy samay emprunté samay emprunté sant naa leen gërëm naa leen di jaar sama clients yi macha allah yi nekk hors secteur yi nekk fépp waaye man di nekk rek maa ngi lay sant di la gërëm. di am contenté bu baax a baax a baax ci émission bi nga xam ne maanaam moom lañ ma dalal pour spécial yéen di sant sama waa Mbaye création parce que yor naa groupe boo xam ne spécial pour Mbaye création pour gën a yombal liggéey bi ñooñu tamit maa leen sant di leen gërëm di sant sama jamaale ñi xam ne maanaam ñooy jóge hors secteur ñëw di ma liggéey ba quartier bi ma nekk muy xaar yàlla ñoom itamit maa leen sant di leen gërëm di taxawaay bu baax a baax di ubbil ñëpp samay porte daal di wax na Mbaye création mi ngi nii ubbil na ñëpp seeni i porte képp ku am looy liggéey doon na nga dagg sa yitte nga ñëw mu liggéey fu waaye man di nekk tamit mën naa la faa déplacer pour fekk la fi bu dee liggéey bi tamit parce que dèjà ñi may jëflanteel ñi xamul sama atelier sa ñoo ëpp ñu xam sama atelier ñoo tamit maa ngi gën a ubbil porte yi bu baax di gën a kontaanaat sama diggante ak ñoom naan ku leen juum waaye dama ci cité benn nit rek ku mel ne tànn yaan ah moom macha allah maa ngi koy sant di ko gërëm yenn saa ngay gis nit ñoo xam ne hors secteur la ñuy jógee di ma envoyé seen xaalis ma leen jëndal jas ne di jëflante ñoom ba ci xew sax damay jël di ci ñëw Euh, comme exemple ma engagé pochette ba ci dàll ba ci lépp dama koy jëflante yéen ñëpp daal ubbi naa leen samay porte daal di am kontaan ci yéen bu baax a baax a baax. Mbaye euh, dañuy rafetlu jotaay bi xam naa ni yomboo jot parce que boobu léegi télévision bu ne seet si na la nga bañ euh, mais gis nañ ni fu mu toll nii yaa ngi commencé di ñëw lan moo waral loolu parce que bu njëkk télévision bu ñëw da ngay bañ mais léegi lan nga pare pour songu média bi. lan moo waral loolu. waaw Jules ñu ngi lay ziar di rafetlu kàddu googu am na solo trop. Mm-hmm. xaj na app bi jotagul rek waaye yaakaar naa bi mu jotee rek. Mm-hmm. yaakaar naa nit ki bu fekkee ne day day day nekk ci milieu di yëngu. Mm-hmm. moom bu mu tëb tëb rek di di incarné loo xam ne jotagul maanaam na bàyyi ba nga xam ne nii ñi mu jëflanteel ñooñu ñoom ci boppam am nañ kontaan ci moom bu ko defee mu mën a wane loxoom xañ na app bee jotagul waaye mu ngi door jot app bee jotul doog a jot en tout cas ñu ngi lay félicité bu baax gis nañ ñëw yu rafet yi nga def ba lii ma sol nii ah, moo du corona bi xam naa am na benn surprise bi nga xamante ne mbokki xarit yu ñuy seetaan dañ leen ko woon ci kanam tuuti parce que ñaw bi dafa am beneen surprise bi nga xamante ne ni mode corona la ko tuddee mu tuddee ko corona man nag maa ko njëkk sol fa yéene cee defak moom émission xam naa ni mbay présenté la fi nga jaar ci wàllu téer ki la jàngal ñëw duñ fi jot buñ fi doon wax ki la fi nga jaar sa jaar-jaar ci wàllu ñëw ba tey actuellement fi nga toll euh, xam naa ni duñ fi duñ fi duñ fi jógee waaye dañuy ñëw tuuti mbay euh, yan ñan lay faral di ñëwal personnalité yi parce que dañu leen gis euh, ci yenn yenn cérémonie yi dañ lay gis ñu lay sant sa tur ñu koy wax ci télé yeeg fu nekk ci rajo ñu lay sant di la gërëm te tey jëmm jaa ngi nii kii mooy Mbaye Création nekk fii ci Grand Yoff xaar yàlla di ñëw ñëw yu rafet Mbaye euh, dañu bëgg tuuti nga wax ci sa ci sa sa relation yi nga xamante ni kilifa yi nga xam ne yaa ngi lay ñëwal ci biir réew mi. ñu ngi am kontaan baax ci question boobu nga ma posé. ndax mm-hmm. daanaka liggéey moom bu demee ba war a génn xam ne nit ñi ko génne waaye bu doon yow donc ci milieu bi nga toog rek. Mm-hmm. pour liggéey daanaka tey lii nga xam ne maanaam muy plateau bi ngay def ak man nii mm-hmm. soo gisee ñoo ko laaj te wàllu liggéey bi moom man ku ne laay liggéeyal mm-hmm. man moom yemuma ci liggéeyal koñ la ku ne laay liggéeyal mm-hmm. daanaka comme waxoon naa ko sànq rek mm-hmm. ñi may liggéeyal ñi nekkuñ ci koñ bi sañoo ëpp hors secteur laay liggéeyee damay liggéey kilifa diine artistes yi tamit damay jëflante ak ñoom damay jëflante ak ñoom. Mhm. fu waaye man di nekk daal boo jógee moom pare naa pour liggéeyal la. Mhm. Mhm. ok ki nga xamante ne aussi tamit euh, yaa ngi biir Dakar ki nga xam ne mu ngi bitim réew di la seetaan nekk bitim da ngay yëngatu ci wàllu ci ñooñu. waa Zil rafetlu naa kàddu googu ndax daanaka kàddu googu bëgg na bokk na ci kàddu yi nga réew moom bari nañ torop parce que ba ci sànq nii ma toog yow nii rek mhm. am na ci koo xam ne daf ma contacter léegi nii di ma xamal ne ma dafa bëgg mhm. maanaam mu envoyé ma xaalis bu ko defee ci wàllu tissu wàllu yëpp parce que loolu dama ci yëngu mhm. mi ngi mel ne yow nga am sa cérémonie rek nga ñëw jébal ma sa bopp ba ci takkaay ah, ba ci dàll ba ci pochette loolu yëpp dama ciy yëngu da yëngatu ci ay accessoires waaw dama yëngu ci accessoire parce am naa ah, en tant que kii nu mu tuddee sax am naa connaissance boo xam ne ci bitig yi nga xam ne maanaam fi la ñuy jëlee accessoires yi mm-hmm. ma dem fa di ko jëlee prix en gros mm-hmm. di jëflanteeg euh, comme clients yi nga xam ne maanaam dañuy am problème déplacé mm-hmm. kon daal maanaam su ma la déggee man su may takk jabar wala su may def événement wala di ngénte ah wala di tudd wala di xew-xew bu mu mën a doon mën naa la jébbal xew-xew bi ci wàllu sañseek accessoire ak ñoom seen yëpp Mbaye création mën na ko gérer. waaw comme maanaam liggéey bi loolu laaj parce que liggéey bi laaj du toog benn place. Mhm. même boo ma jébalee sa bopp man sa musique rek laa soxla. Mhm. muy tissu bi muy pochette muy daal lépp dama solol solal. Mhm. loolu moom pare naa incha allah rabi pour gën cee avancer bu baax a baax dal ok dégg ngeen ko noonu mbokkee xarit yi du ñu avancé tuuti ci wax ji parce que dafa jëf-jëf yi nga xam ne dafa rafet jëf-jëf yoo xamante Sénégal askan bi ñëpp a koy coow fu nekk di yëngatu ci wàllu mode et puis di ñaw lu rafet dafa am extrait yi nga xamante ne jëloon nañ ko fii et ak ay mannequin yi nga xamante ne soloon ko ñu fas leen ko présenté mbokkee xarit yi toog leen ngeen concentré wu ngeen seetaan li nga xamante ne ni fii la bàyyeekoo fii Sénégal ci doomi réew mi et puis di bi nga xamante ne ni euh, muy Mbaye Création jeune la di ñëw ñaw lu rafet mbokk yi nañu toog ñu seetaan ñu commentaire modèle yi nga xamante ni cinq modèles yi nga xamante ne ni ñu ngi leen koy présenté ci biir émission sama sama sama tailleur acca c'est maintenant Keba waa gis ngeen ko noonu ñun ne leen ko diggéen gis nga model yooyu ah mbay bi rafet ne lii lan la waa li tay baas la mu borodee

ah beneen a ngoog mbay bi bal la ah dafa mel ni même xale bi la la xale bi ah xale bi sooful de. waaw kii moom sama spécial la moom kii moom yàgg nañ moom parce que bari na modd yu bari yi ma ko daan def dama ko jël ndax taay yi may ñaw day tombeek moom bii mooy kii mooy modd ci tabaski bi laa ko génne parce bii mooy aération bi parce boo xoolee léegi bu njëkk comme exemple ni tay baa si léegi da koy dagg godé boo ko daggee godé boo ko bàyyee rek mu taxaw ah com mu seeg madame alaaji àngook alaaji as borom sikkinu naana grand boobu bi mais da ko tikkil ñu tuuti ci ci daamine bu rafet bi gis nga ah yii rafet na mhm. waaw kii moom daamine moom spécial la pour mbay création la ndax bu njëkk jas neer rek nga daan gis gars yi ko def grand boobu waaye super sang yi gars def yëre góor moom laa ñëw def ko grand boobu daal jëlal ma jeeg bu sew bi bii moom mooy ban ñëw bii nag mooy VIP waaw kii mooy ti Facebook gis nga ko man maa ko ñëw dèjà boo xoolee boo xool grillage yi ñu ci dënn bi bari na ah. moo waral mbay création créé ko def ay fenêtre yoo xam ne ni maam borom bu ko solee du sentir tàngaay ah. Facebook dafa xew ñaw baa ngoog Facebook. ñaw bi Facebook la tudd. Mhm. tay baas bi Facebook la ko def jupe euh, bi ñu def ko jasneer ah. parce que Facebook dafa seer boo gisee ñi nga xam ne maanaam dañ koy jënd mhm. affaire bi xaw a ci moom moo gën a seer jasneer. waaw man li ma jaaxal Facebook inscription bi gratuite la de Facebook moo gën a war a gën a mun a yomb. ah bii nag moom am na différence moom. dama ñëw saa atelier fekk fi gone yëpp di Facebook. waaw gis nga jël nañ ko ak doole uh-huh. moo waral ñu ñaw ci ñaw kirage def ko golf bi nii uh-huh. def girage bi ci digg bi def frein def aération ci côté yi uh-huh. mm-hmm. ah macha allah boobu xale bi ko sol moom da koo ñeme trop mm-hmm. Mm-hmm. Ah, xale bi kay macha allah macha allah kii mooy soxna nga <laughs> ah, na waar de <laughs> non loolu ëpp na sax <laughs> ah, xale bi da ko ñeme trop ñu bàyyi beneen waaw lii nag dafa mel ni robb la robb ak mbasin ah wala wala brodé. waaw kii brodé la ak ak jasneer ma jënd jour parce que dugal ko ci ni pour travailler ko waaw moo waral mu nga ko zone poussin la parce que xew na trop dama ko pass kanam ak ginnaaw wàcc sero bi parce que borode moom finition bi sero bi mooy ñaw bi. Mhm. dégg naa ñaw bi jongoma nga ko tuddee jongoma. bi bii moom spécial jongoma laa ko tuddee moom bii ko tuddee. kon jongoma yi gaaw leen ci tabaski bi gis ngeen lu bees li nga xam ne dañ ko mbay création fii ñu jagleel ko waa waa sénégalais yi surtout ma jongoma yi rawatina bii mu tuddee ko jongoma gis naa fi Facebook gis naa fi spécial gis naa fi jongoma ah lii neex macha allah waaw gis nga ko de te femme bi gis nga ko comme li ñu wax ci wàllu takkaay mbay ah mbay ah, création lii lan la dem nañu Mali ana soxama ani wura ani cee mbay bii bal la. waaw lii de saraxula yi laa ko may spécial moom am ma ko àndaaya waaw macha allah waaw bii de mooy Facebook nag dëgg-dëgg VIP dëgg-dëgg moo ngi nii nag waaw kii moom spécial grand boobu rek lañ ko def mu filaale ci noonu xam nga. mais mais mais kii xanaa ñëw ko war naa yomb de. waaw kii nag moom ñaw ko méttiwul nag ñaw ko méttiwul ndax daanaka boo xoolee ba grand boubou bi design bi noonu lay wàccaale hmm. boo ñëwee da ngay génn serbe ak musóor bi bàyyi col bi hmm. daal dagg grand boubou bi rek daal di bàyyi noonu mu dem. Hmm. tissu bi cher war na cher. waaw tissu bi nag moom war na cher moom parce que 100000 la démarré wàcc day dem ba mille dem ba vingt mille dem ba 75000. ah Mbaye oh, oh. Mbaye defal nag Mbaye dafa am lu ma gis waa kii moom spécial saraxula yi moom kii moom am maxo àndaaye waaw macha allah gis nga ko ñoom moom daanaka seen cosaan moo ngi nii kii moom damay bàyyi ñiy seetaan mbokk yi seetaan ñu commentaire ko li ma gis doy na waar de lekket lépp ci ñaw bi cosaan la ñoom xam nañ ci dara moo tax ma ma dédicacé leen ko eh. parce que damaa yàgg ak saraxula yi macha allah rabi moo tax ma may leen bii spécial eh. mhm. play yi nekk Paris yëpp war nañ koo gis de. waaw ñi nekk France hors secteur ñëpp war nañ koo gis ku mel ne soxna Dieye jaa di jël moom moom mooy moom mooy mooy kii kii saraxu lay moom ma jóg ko spécial teg ko ci loxo bi moom xam naa leget léget bi bu ko gisee xelam dana sori bu baax a baax ñoom laa ko may am ma ko. waaye ma mayaale ko sama benn jigéen mu ngi foofu ca Paris la France mooy Ami Sidibé ah Ami Sidibé jëlal li lii de ah lii rafet na xoolal li kii moom ban tàkkusaan la. waaw kii de moom yaakaar naa ne boo demee julli juma ba ba yenn heure rek nga taal sa oto ndànk yaag sa soxna ngeen dugg ci biir maanaam ngeen dem mën a ziare copain yeeg yooyu noonu ak mhm, boo wàccee ci bi di dox muy xiis xiis. waaw muy muy fërëx fërëxi bu ko defee ngay sentir yow mii yow sol nga lu seer xam nga nit moom da nga a sol lu seer. Mhm. kii de Keba war na ci am dara soxna sa ca Casamance. waaw war na ci am dara de. Keba moom dinaa ko pare incha leen ko yére bi may nga leen ko waa Casamance mais leket bi du dem wala day dem non leket bi moom cosaanu saraxule la moom xaw ma nag baxan nag képp koy saraxule daal yow laa ko may waaw mhm. fu mu toll nga ñu ci làmb ja tàkkusaanu làmb ja yóbbu nga ci culture yóbbu nga ci ci art yóbbu nga ci mode parce que leket bi ça représente beaucoup de choses waaw avec création rek warta mën a yomb warta mën a yomb parce que création lañ wax daanaka lii yombul parce que lu mel ne cosaan tey nga indi ko fii sa biir modd xam nga tey yombul. Eh. Mhm. macha allah dafa am lu ma seetlu yëre bi boo ko seetloo ci biir couleur yi muy jël moom la leket bi jël leket bi da nga ko ñawal solal ko wala leket bi da nga ko couleur ba pare parce que yëre bi noonu la mel. waaw loolu lépp ci mbay création la parce que déjà ñoom bu ñu fekkee dañ lay muur lii ne la war a naane lay soow moo war a instant fi ma defee couple nii man ak moom nii xam war a mën a xam nga rek def dundal cosaan bi gis nga fi ma koy naanee noonu. di ngay tànk di naan. waaw soow mu nekk soow <laughs> moo ne ci biir. lii saa yaa ngi tànk yaa ngi yaa ngi di naan moom saa waay. waaw gisoo maa ngi koy tànk sax di ko naanal noonu. waaw waaw lii benn affaire la eh? waaw couleur kii bi nag eh? couleur leget bi eh? nañ ko marié ci couleur kii bi grand boubou bi. loolu. ñu créé ko parce que mbay création lañ wax. Ah, loolu. macha allah en tout cas na mbokk yi koy seetaan waa Mali ñëpp war nañu kontaan. macha allah may naa leen ko maa leen koy jox bu baax a baax a baax parce que gis nga orange bi loof bi gisoo ni ma ko indee ci biir kii ah, amul amul amul macha allah waaw ca kaw ca kanam rek avec Mbaye création moom lépp a a nekk. waa lii ñi ci bëgg a jot bitim réew nag nan la ñuy def xanaa ci numéro yooyu. Mhm, ñi ci bëgg a jot rek comme numéro yi ñu joxee rek comme bu fekkee ne wàllu orange bi la 433 46 16 bu dee Tigo bi 672 92 bu ngeen ko jot ci Facebook bi tamit ñoo nga fa. Mhm. parce que ñun par nañ ubbil ñëpp suñu porte fu waaye mën di nekk rek mën nañ laan liggéeyal mhm. waaw. ñoo ko déggandoo fu waay mën a nekk mën nañ naa liggéeyal seen émission sama téer la woon ñoo ànd ak Mbaye Création xale bi nga xamante ne nii moo ñëw ñëw yu rafet yi déggal xoolal li ni mu rafetee yanjee yaatu ah te yomb lool teg ci nag ndax dagit moom it dafa nekk te jeune jeune entrepreneur bi nga xam ne di yëngu ci social mais di yëngu ci modd di xool solo nit ki ci loo mën a am ak ci looy mën a yëngu soo ñëwee da nga sañse ba mu rafet foo génn ku la ñëwal nga ne mbay lii li rafet na mbay ah waaw noonu la mën a demee sax dafa war a man a rafet ndax jaamu yàlla ne xol dafa war a dund xol dafa war a dund waaye li gën a garaaw mooy nit jox la sa tiisi ba pare nga war ko cee kere nga di ko defal lool ñun duñ dox ci lool ñun moom dañuy ñëw kerel la ba maanaam client yi ñuy liggéey lépp xam na ne kuñ jox sa ñaw rek da nga am kontaan bu baax a baax. Mhm. jëlal ma bi dégg naa nag Sénégal yëpp nee nañ ñëw bi yow rek yaa ko fiy ñëw Sénégal lépp lii bi Sénégal wër ba daj tey yëpp yow yaa koy ñëw mais bii rafet na ni nga ko waxee ne noonu la amee nag ñaaw bii nii moom man maa ko créé woon ndax ke fi mu ko njëkk a créé mooy sama benn rakk moo doon ngénte euh, ku Xaadim Diop soxna Nday moom laa ko njëkk a créé à la fin modèle dem di dem di dem ba mu ngi nii parce que modèle mi ngi jóge fi ba heure secteur laa ko ki ma ko ñëw fa la dëkk. ok pas de sàcc nag téer lu ñu xool lu ne jël ko amul fenn fii lay xewee fii ci mbay création gis ngeen numéro yaa ngi noonu yi création li nga xamante ni biir mbay création lañ ko créé jëlal ma li jëlal ma xale bi ah, mbay li rafet na gis nga ko ni mu marié dàll bi ci laa wan na damay yëngu ci wàllu accessoire bi boo gisee femme bi dama ko solol ba pare euh, ci takkaay lépp maa ko solol macha allah gis nga mbasin bi tam maside qualité bu am important gisoo maanaam takkaay yi gis nga takkaay macha allah lii daal ci mbay création la xamee di ko may sama waa mbay création spécial sama groupe mbay création ñoom laa daldi lii daal. non lii moom macha moom bii mbay bii rafet na. bii mbay rafet ba ñëw bi nu mu tudd. ko solee sax waa bii de mooy spécial rek spécial laa ko tuddee parce que spécial moom li mu ëmb bari parce que dèjà bii nii après bi paree bi ko ñëw ba dañ ci def strass nañ am benn machine boo xam ne bu ñaw bi ñaata fan lay def. waa ñaw bi na xaw na diire nag ah, xaw na diire ndax daana ka boo koy ñaw moom daanaka moom ah da lekk ba suur parce que ñaw bi dafa dafa kiit parce que dèjà léegi gars yi xew léegi di fab tisi di ko fekk ci kaw tisi bi di ko ñaw balaa boobu day taas da jënd beneen matière nga daamine pare nga découpé ko ñëw tegaat ko ci tisi bi pour mën koo teg mu naagis waaw kii eh, war na gis lii ndax war na ko gis ñaw bu bees di ko may waa France Italie di ko may ñëpp kul képp koo xam ne mi ngi liggéey ak mbay création rek maa ngi ko koy may ah bii rafet na macha allah macha allah waaw bii moom macha allah daal macha allah daal mhm. dafa fireeku nii gis nga ndigg dafay mel ni genre pitax. waaw waaw kii boo gisee coupe coupe arrondir la grand boubou bi grand boubou mondial la maanaam day ngandee ci kaw sawee ci suuf bu defee doo dàq parce que de sër bi nekk ci sër dafa war feeñ ma door ci ay étoile ni def ko kanam ginnaaw baat bi baat bato la femme bi ko sol moom macha allah parce que ñaw mais déggal baat bato baat bato moom ah ci ñaw baat bato. loolu moom ay feem yu bees ay création yu bees ay innovation yi nga xamante ne mbay culture créé na ko fas yéene ko euh, euh, jébbal askan bi euh, ci ci ci ci tabaski bi ñu jëm si ah Mbaye dafa am benn surprise bi nga xamante ne da ko def surprise bi ñu fas yéene ci waxtaan léegi muy mode corona ñoo gis ne aussi yamul rek ci couture waaye jeune la bi nga xamante ne aussi dafa yëngatu ci wàllu social ndax fii ku fi ñëw dinga nga solo ak bi lu mu mën a toll fu mu mën a jógee nu mu mën a cher daal lu mu rafet rafet loo fi ñëw ak lépp loo yor di nga solo. Euh, mbay euh, fii jeunes yi dañuy faral di wax ne mbay mbay mbay rafet la mbay yombule lan moo waral baat boobu. waaw loolu sa normal parce que nit ku nekk ci li ngay liggéey ci ngay jaamoo yàlla mhm. man loolu laa ko jàpp rek mhm. yaakaar naa nit ki bu demee ba daggee itam ñëw mhm. sa war te mën a génnaat te génnewu fi ñaw bu pare waaw muy yóbbuwaat tisim di ko ñëw man loolu laa opté moo tax ok nga génnee création bu bees muy mode corona ak pandémie bi ñu toll nii euh, dañu bëgg présenter sénégalais yi mode corona bi man nag man maa ko sol xëy na peut-être euh, dafa njottu ni dama war a corona rek wala peut-être dafa njottu ni donc du may sol masque gis ngeen ko nii ah man li ma ci gën a metti mooy daf ma ñëwal mode corona ak fii ñu toll loolu mooy yéene la corona ah gis ngeen ko xaaral tuuti petite démonstration ñu won leen ko ñu sol ngeen xool ngeen gis nu mu rafetee Euh, te amul fenn du bàyyeekoo fenn fii lay xewee ci mbay création Darou Salaam fii ci Grand Yoff xaar yàlla numéro yooyu rek ñu ngi ci suuf noonu ñu joxe da ngay def 77 433 46 16 77 443 46 16 numéro Tigo bi aussi tamit bu la neexee nga jël 76 672 92 14 ñaar yëpp am na WhatsApp 24 heures sur 24 boo ko ci wooyee dina la wuyu dina la décrocher et puis mun nga def sa commande. ci feetu ñaw bu la neex bu la neexee mën nga nekk bitim réew jokkoo ak moom mu jëndal la tissu jëlal la mesure bu la neexee nga envoyé ko mu ñawal la model boo bëgg. aussi tamit dañuy dañuy liggéey ak ñi nga xam ne ay GP lañu dañuy jaabante ci diggante euh, Sénégal ak bitim réew loolu aussi tamit. pour leeral ko ñi nga xamante ne ñu ngi bitim réew fu waay mën a nekk euh, mën nga woote ci numéro yi nga xam ne ñu ngi ci suuf nga def sa commande et puis sa ñëw dina la fekk si ci benn 72 heures wala 48 loolu leer na ma ñi nga xamante ne aussi tamit ñu ngi ci biir réew bi Dakar ci région yi fii ci biir Sénégal aussi tamit dans 24 heures la ko livrer fu waay fu waay mën a nekk biir Sénégal danañ la ko yóbbul mbokkee xarit yi dañuy ñëw ci mode corona dañuy def petite démonstration euh, moom mooy décortiquer ñu ci wàllu technique bi bi inspiration xalaatee mbay euh, teel ma ma ma def modu corona teel ma micro bi. gis ngeen ko nii mbokkee xarit yi ñuy setaan gis ngeen lii mooy moddu corona et dañ lay ñawal sa tissu bi ñu lay ñawal moom mooy nekk sa masque xam nga ne lii rafet na ah lii rafet na euh, Mbaye lan moo la inspiré nga ñëw moddu corona et puis xool ma ne dinaa la ñëwal moddu corona jox la lan la da nga jàpp ne dama corona wala ci moddu pandémie bi rek nga am inspiré corona ñëw corona. waaw Zil ngi rafetlu kii bi parce que boo demee ba ne mbay création rek wuy na turam. parce mbay création lu ñëw rek war na anam te jamono bi ñu dañu nekk ci jamono corona. Mhm. te jamono bi ñu nii masque yi gis nañ ne maanaam xaw na jafe trop. Mhm. léegi moo tax ñu ne man moom mhm. ma pare képp koo xam ne moom pare na pour maanaam su ma ko ñawalee yërëm ma boole ko ci maskam tamit loolu lépp ci biir waxtaan bi na mhm, wax dëgg yàlla man moom am naa mhm. kontaan ci wax dëgg yàlla mbas mi moom gaa maa ngi massa sama mbokku téyër yi waaye alhamdulilah ba yàlla suñu borom bi mi ngi wàññi affaire yi par ndànk-ndànk moo waral mën a xaaral créé mode corona bii nii. Mhm, mhm. pour ñawal la ko pour bu defee nga mën koo wane pour nit ñi xam ne mbay création wuy na turam. Mhm, donc gis ngeen ko nii mode corona gaaw leen numéro yaa ngeen woote ku ci bëgg def ku ci bañ ñu fay loola douze mille wala dix mille franc ci tabaski bi xam nga ne sànce ba rafet nga génn police ne la kaay fayal douze mille fayal dix mille xam nga ne loolu neexul. ah te jamono dafa métti kenn mayaxatul ndëwénal mooy xale yeeg mag ñeeg donc na ngeen ñëw woote leen ci numéro yi def seen commande ñëw seen mode corona et puis seen takkusaanu tabaski neex ah takkusaan tabaski neex donc mbay danay ñëw loolu ci wàllu pandémie bi euh, gis nañu aussi tamit secteur yëpp taxu nañ rawatina yéen ci wàllu ñëw bi te ngeen nekk seen période euh, euh, seen période événement tailleur ku wax tailleur wax korité wax événement wax tabaski mhm. naka ngeen koy dundee yéen tailleur xaalis amul naka ngeen koy dundee ak clients yi. waaw Zil wax nga wax bu am solo sax ndax mm-hmm. euh, nit ki boo demee ba yàgg ak moom rek yaakaar naa seen jëfin war na rafet mm-hmm. parce que nit ki waroo yem ci liggéey ak moom ngir xaalis rek am na mm-hmm. fooy toll foo xam ne yaa ci war a jàpp parce que réew mi ku ci nekk rek ci li ngay liggéey ci nga mën a jaamoo yàlla mhm. man fa laa ko teg man ñi may déglu samay client xam na ne man mhm. aw lenn loo xam ne man metti naa ko sama diggante ñoom mhm. parce que démb la woon tey di door a ñëw xaritu internet yi lii lañ leen indiloon ci seen biir émission sama tailleur sama émission sama tailleur émission sama tailleur di émission bu bees bi nga xamante ne waa Senclic TV yi ñoo leen ko indil fas yéene leen di jeune talent yi nga xam ne ñu ngi ci biir mi kenn ci ñoom ku mel ni mbay gis ngeen ko noonu li nga xamante ne nii wane na ko fi sànq ba léegi di ay ñaw yu rafet nekk ndaanaan boo xamante ne nii donc fu ne loxoom yegg na fa fu ne turam yegg na fa waaye tey jëmm ji mu ngi nii mbokkee xarit yi gan gannaaw gannaaw gannaaw bi ngeen seetaanee loolu ñun nag duñ jóg ci du leen sant di leen safoo di leen jaajëfal parce que du ñu jóg di taay di wax ne Senclic bu tollee fii donc yéen ñi ngay seetaan yéen ñi ngay partagé donc wooy leen di abonné saa su nekk pour mun di jot suñu actualité politique fait divers people sport société et puis euh, actualité internationale ak lépp loo xamante ne mu ngi xew ci biir réew mi ak biti réew mi ci li nga xamante ne ay valeur kese la ci li nga ci li nga xam ne ci li nga xam ne ay valeur kese la mbokk yi gannaaw bañ leen nuyoo sant leen gërëm leen dañuy bàyyi mbay et dernier moom mu tàggatoo nuyu askan bi ñu leb ko ba beneen yoon jërë ngeen jëf asalaamaaleykum. asalaamaaleykum yéen comme ni ma nga ko waxee rek yéen waa mbokk yi mbay création yi di sant sama groupe mbay création spécial ndax atelier bi am na groupe boo xam ne spécial la heure bi instant message yaa ngi dàqe ndax ñoom dañoo am kontante bu baax di leen sant di leen gërëm bu baax a baax ci li nga xam ne ni maanaam mooy émission tey bii spécial yéen naa ko jagleel di ko jëlee jagleel sama clients yi nekk hors secteur li nga xam ne mbay création ubbi na leen ay portam fépp waaye man di nekk ak noo ko bëggee ak noo ko bëgg a doxalee par na pour jàppale la ci aussi tamit di sant sama benn jigéen boo xam ne spécial la muy soxna Dieye Dia ndax bu ma demee bay jëflanteeg saraxula yi à cause de moom la ndax wax boole na ma façon client bu ne moom maa ngi koy sant di ko gërëm di sant Taniyaan Taniyaan tamit kooku sama nit koo xam ne tamit macha allah kon yéen ñëpp maa leen sant di leen gërëm di spécial nag benn sant ak gërëm mooy samay employé samay employé sant naa leen gërëm naa leen ndax ñoom duñ tardeel ñëw te macha allah respecté nañ seen liggéey maa ngi leen ñaanal yàlla suñu borom fii nga xam ne maanaam teg naa sama tànk ñoom ñu dem ba raw ma ci kàttan suñu maa ngi leen sant di leen gërëm di sant sama waajur bu góor yàlla na ko suñu borom bi xare àjjanay firdawsi ndax lépp moom la ndax tey su ma demee ba dugg ci métier bi yàlla ak moom la di santaat tamit sama yaay ji nga xam ne maanaam moo toog ci kër gi tamit di ma xaar yónni ma tey yàkkamte ma ñu ngi leen ziar bu baax di am kontaante bu baax a baax a baax a baax ci émission tey bi di santa keneen koo xam ne ne su ma demee ba toog ci teer yàlla ak moom muy Souleymane Diop di sama patron